ngi noonu mbokk yi dimanche 31 octobre Fallou Ndiaye ak waa Ndiaye production ñoo ñu woo ca arène nationale ba daal di boole ñaari xale yu ñu gën ràññee ci seen génération grand combat bi war a dox ci diggante Tapha Mbeur doomi parcelle ak Ada Fass gone Fass Médina Gueule Tapée drapeau jeu technique Mor Kankang booy yëmbal du xam ngeen leen bu ñu bëree mu neex bu ñu xeexee mu neex waaye ay bu ñu feccee ñu daal di jële ji Hercule boole ko ak armée bu ngéwél cey boobu combat waaye nag mbokk yi bu leen fàtte ni lamb ji nekkatul stadium Iba Mar Diop waaye arène nationale et que direct lay doon activité sur sen affiche point com daw leen gaaw jënd seen ay code ndax 1000 francs rek la kon dugg leen gaaw ci seen affiche point com ngeen daal di cliquer événement Tapha Mbeur ak Ada nga bës acheter un code bu fekkee da ngaa bëgg a jënd ak sa Orange Money wala sa Wave wala bu fekkee da ngaa bëgg fay ak sa carte bancaire da ngay bës connexion par mail kon nag mbokk yi bés baa ngi noonu dimanche 31 octobre ca arène nationale Tapha Mbeur Ada Fass combat des espoirs ak Fallou Ndiaye toj nga fi jërë ngeen jëf mbokk internet Lutte TV point com ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal tey jeudi 28 octobre 2021 ñu ñëwaat ak yéen ci xibaaru lamb yi ma ci ànd ak Bouka dalal naa la soxna Amina maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar mbokk Sénégal yëpp rawatina mbokk internet Lutte TV ni nga ko waxee rek tey nekk jeudi 28 octobre 2021 ñu ñoo ko yéen si yéen kaay yi yéen kaay yi journalu suñu làmb lañ koy daal di ubbee ca xëtam gu njëkk mu daal di fës rëg-rëg ci fitam bu rëy ak euh, gëm-gëm bi nga xamante ni am na ko ci MMA nee na kii nii di Pudzianowski te mu yóbbu Bombardier kawo euh, moom lay laaj jamono jii nii te nag ko jox pour daal di koy daan pour daal di koy daan nee na sax bu ko jàppee da koy lekk loolu la euh, Jine moom rek nga jamono yu Amina Ndiaye ma nga États-Unis di yokk ci rek di dolli ñeex di moom gis ji yëpp chaque jour journal bi wone ko muy wax daal ay bëgg-bëgg mooy maanaam jëlal Bombardier revanche si kii di Pudzianowski wow dem na sax ba wax ne ñoom ñaar bu ñu leen boole woon moom nee na ñoom ñaar bu ñu leen boole woon day signé contrat bi les yeux fermés maanaam day gëmm signé ndax yàkkamti koo bëre waaye jàpp na moom au bout de euh, trois minutes jàpp na ne moom war mën na daan ki nga xamante ni tey moo di pour euh, si Pudzianowski li waa naan kaana du xalaat Reug Reug nee na bu ñu ko doon boole ak Pysianos kii amul lu muy xalaat amul lu muy réfléchir bu tëddee day nelaw ku mu neex sax bu loo dem neexee nga dem signé ko moom après mu bëre bëre bi daal après moom mu bëre bi dafa mel ne nag gëm-gëm ak euh, fitam bu rëy loolu lay waxee ni nga ko waxee Amina Ndiaye waaye keneen ko xamante ni te ay bëgg-bëggam mooy jël revanche am si Bombardier muy Rocky Balboa ginnaaw seen combat bi ñu ko tegee woon Bombardier gagné woon ko moom Rocky Balboa nag ay bëgg-bëggam mooy jël revanche am ci Bombardier su ma juuma Rocky Balboa moom la Bombardier ubbee woon baalam ci MMA. waaw waaw léegi jamono ji daal gis na ni Pudzianowski daan na ko rek mu yaakaar ni Bombardier nooy neex na war na mën a ñëw jëlaat revanche am. ah Bombardier du nooy neex de ni ko wuli doon waxee Bombardier champion la ndaanaan la amaana heure de combat la def rek wàccee gardam tax tey mu jël kaw boo xamante ni tey c'est un kaw un jël un coup fatal. Mhm. bu ko jural kaw waaye daal. Mm, combat la tam ñaar ko combat revanche bu neex la waaye bu rëg rëg Pudzianowski tamit combat combat rek parce que rek rek ni ma la ko waxee rek gëm-gëmam lay demee ak fitam mm-hmm. te yaakaar naa ne MMA moom moom tamit bokk na si ñi nga xamante ñu si wane seen bopp Sénégal parce que mm-hmm. daanaka moo si ëpp ay combat ci mbër moom moo ci ëpp ay combat teg ci tamit nag euh, gis nañu réalisation yi mu ci ab ndoote tax am na ci benn défaite récemment ci combat bu mujj bi ba tey ci biir journal bu ñu ci desandee ak yéen ginnaaw ba ñu officialisé combat mbay guy gi ak Zarko mbay guy gi nag njëkk naa yëkkati ay tragam jëmale ko ci Zarko. waaw ay bëgg-bëggam yëpp mooy maanaam avant dara mooy maanaam yéen ko ba biir fëkk ko si suuf woon ko ne mag nga paa nga maa la maa maa la dàq bëri maa la ëpp doole maa la gën a nekk xale loolu ay waxe mbay guy gi la si mm. biir journal suñu lamb signature bu neex bu yëngu bu bu animé boo xamante ni yaakaar na ne gis nañ ko si toile yi si réseaux sociaux yeeg fépp gars yi ko fay dugal di ko dagg di ko dugal TikTok waaye ni tey rent ko tëgg. nee na ko daal wax amul dara amul dama la yëkkati ba ci kaw ndi la réerlu ci euh, l' wala la jeunesse au détriment de l' expérience waaye daal combat la bu neex a neex a neex Amina Ndiaye. noonu la demee eh, ki nga xamante ni nag moom moo di Maawo Cissé coordonnateur bu SSG ne jamono ji eh, seen bëgg-bëgg da leen lu dul eh, taxawal combat jënd kayre ak Yékini Junior comme ni ko amateurs yi combat Reug Reug ak Gouye Gui fi mu toll nag seen bëgg-bëgg yëpp mooy taxawal jënd kayre ak ki nga xamante ni rek Amina Ndiaye moo di Yékini Junior combat nag bu neex boo xamante ni tey amateurs yi bëgg nañ ko ñoo ngi koy plé ñoo ngi koy plébiscité ni ñu ko mën a waxee rek seen bëgg-bëgg daal dafa mel ni mooy taxawal ko te am naa yaakaar ne ñu ngi ci démarche yi fi mu nii. en bu yàlla ne waaw saison bii nii lu ne xaj na ci lu xajul ci bi ñu génn rek war naa mën a xaj ci bii nii ñu nekk Kara Dieng nekk chroniqueur te diwaanu Thiès ma yëgale ni Ousmane Gandigal moom moo nekk favori ci kanamu Aladji Gaye moo mën parce que boo seetloo Amina Ndiaye moo ko ëpp expérience moo ko jiitu si làmb te li ñuy naan wutee gis-gis moo waral moom Kara Dieng nag nekk chroniqueur fële ca diwaanu Thiès nag gis na ne daal Ousmane Gandigal moom mooy favori si kanamu ki nga xamante Amina Ndiaye moom mooy euh, euh, Aladji Gaye Farba bu Pikine mbooloo Italie la toog teg la ay tànkam te naan nañ ko jox Fils de Balla mu daal di koy dóor daan ko. waaw bëgg-bëgg moo jël Fils de Balla daan ko moom Farba nekk euh, un pensionnaire de Pikine mbooloo jamono ji nag dafa fàq mu nga bitim réew xam naa nag daa bëgg a ñibbisi sóobuwaat ci làmb ji Amina. kii nii di professeur euh, Daouda Daouda Ndiaye mi ngi encouragé jee bu baax a baax ci kaw bi mu jógee euh, digganteem ak euh, Pudzianowski teg ci tamit nag mu war a dem ci ay combat fii nii ci Sénégal. waaw teg si mu war a dem ci combat fii ci Sénégal ba tax na daal moom Bombardier moom ñu ngi koy encouragé rek ni ko professeur Daouda Ndiaye di encouragé Amina Ndiaye ak Sénégal yëpp ñu ngi koy encouragé si li nga xamante ni rek moom mooy kaw bi mu jógee Amina. li nga xamante ni moom moo di wàllum lutte simple nag poids lourd yi euh, se jamono ji daal dafa mel ni ay poids lourd manqué na lool ci lutte simple waaw xaw a raar Amina Ndiaye boo seetlu nag ku si mel ni Eubeuly dafa jógoon ci combat général Malika nekkoon ci contrat ñoom ordinateur ak ñeneen ak ñeneen nekk regroupement di waajal CEDEAO yi moo tax ñu xawoon a raar waaye nag yaakaar nañ ne daal week-end yi di ñëw moom euh, incha allahu rabi gars yi dinañ wàcc si ak doole ginnaaw ba Bomba Dieng amee kawoo ñu ci bari nee nañu MMA dañ ko war a tere ci Sénégal ndax dafa nekk sport bu dangereux looloo waral nag Reug Reug moom jóg na di défendre MMA bi te nee na sax fës na yéen a continuer di bëre MMA. waaw Reug mu ngi défendre MMA ni ma ko doon waxee démb rek MMA moom Amina Ndiaye ku koy défendre tamit amaana euh, da nga amul mbokk bi ci nekk rek parce que MMA tey mhm. euh, doole bi mu am tey ci àdduna bi koppar gi muy may tey euh, ñu koy pratiquer te yaakaar naa ne làmb mënul may sax kaar bi kon yaakaar naa ne làmb Sénégal la MMA international la. rawatina nag tey ñi intégré nekk ñi intégré nekk UFC di fa compétir ay milliards de dollars Amina Ndiaye wala ay milliards de CFA mhm. la am ci boobule sport kon yaakaar naa ne MMA daal ni ma koy waxee la rek képp ko si dugg daal nekkal xale nekk ndaw jàng li nga xamante ne moom moo di euh, euh, technique de base yi jàng karaté jàng boxe jàng jiu-jitsu brésilien pour donte moom mën nañ bëre yaakaar naa ne loolu moom ku ko def boo si duggee mën nga ci percé looloo di koy intégré moo tax journal bi jàpp sampalaat ba na ci ñi nga loolu am na ay euh, am na ay athlètes yu muy entraîné ku si mel ni dañ doon bokk di entraîné ak ay euh, euh, champion MMA yu doon jóge sax ba États-Unis di ñëw fii nii tey di entraîné si yaakaar naa ne moo tax journal bi jàpp ne moom Serigne Ndiaye moom mun na am mu intégré lii di MMA bi. waaye ñaari journée yi nga xamante ne ñoo ngi koy xaarandi ci diggante Dakar ak Thiès le 31 octobre incha allah. waaw le 31 octobre incha allah Fallou Ndiaye moo tëgg fële ca arène nationale Ada Fass Tapha mu war a nekk nag combat bu neex waaye Siri Diakha tamit war a tëgg Alaaji Gaynde ak ki nga xamante moo di Ousmane Gandigal fële sa Thiès mu war a nekk tamit première journée moom Siri Euh, dimanche moom dina neex dina yëngu Amina. métro ginnaaw absence am bi jamono ji mi ngi euh, préparé retour bu triomphal maanaam daal na ko ñëpp xaar. waaw na ko ñëpp xaar moom métro ginnaaw bi ñu ko gëj gis lool lool lool lool mu toog ay année blanche yu bëree bëri ñu ngi xaarandi daal retour am si arène bi. seul manager détenteur de la carte nationale de Rufisque euh, Mame Ndiaw Cissé euh, jamono ji daal euh, li nga xamante moom moo di ambition du lenn lu dul jël li nga xamante moom moo di làmb ji daal di koy fësal foofu. sa Tëngéej foofu sa Rufisque rek moom Mame Ndiaw Mame bokk na nag si manager yi nga xamante ni Amina Ndiaye carte nationale lañu am parce que ñu si bëri ay carte régionale lañu am ñii Dakar lañ bokk ñii Thiès feneen ak feneen waaye carte nationale moom boo ko amee tey sa mbër a bëri fépp ci région yi fépp ci biir Sénégal te loolu gëm-gëm ak maanaam bëgg-bëgg bi mu bëgg làmb di ko topp looloo tax mu am ko moom maam ñaaw Cissé tax na daal mu bëgg daal vraiment euh, gérer li nga xamante ni rek moo di làmb fële ca Tëngéej rawatina nag tey ñi nga xamante ni te ñoom ñoom la yor ku su mel ne ay góor gu étudiant doomu dàngu lu mu si nag ak ñeneen ak ñeneen Amina Ndiaye. ci biir kàddoom wax na ci problème bi dox ci diggante Abou Bakhoum ak kii nii di Luc Nicolas. waaw wax na ci mu nekk nag loo xamante ni rek jàpp ne maanaam tey loo xamante waxtaan rek que rôle manager ak promoteur moom ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi maanaam jàpp na ne bu waxtaan di am rek ñoom amaana problème maanaam mën na ba mën bañ di sori parce que nag jàpp na ne réeroo mënta ñàkk diggante ñiy bokk di liggéey waaye nag des bu bu bu bu dialogue amee rek yaakaar naa ne tene d'entente stade Ngalandou Diouf euh, ci ouverture bi euh, ci la yëkkati tamit ay kàddoom di ci jëmale. waa di si jëmale mu mel ne nag maanaam tey ouverture bu stade Ngalandou Diouf pour làmb parce que dañ ko dañ ne woon duñ fa teg làmb waaye jàpp na daal stade boo xamante ni tey Amina Ndiaye parce que léegi euh, gis na ne Tëngéej. écrits yi gën a fës tey si si at bi tey tëngéej lañ nekk ay sungaan gay kaay baax yeneen ak yeneen kon jàpp na ne foofu tey bu ñu soxlaa stade ba war nañ leen ko mën a jox ñu maanaam li fa ñu fay mun a tëgg ay làmb ba tey ci biir euh, journalu record li nga xamante ni fësalaan na ko ci wàllu wàllum euh, làmb nag mooy euh, kii nii di général Malika daal di nay posé benn recours. waaw daal dina déposé benn recours ginnaaw bi nga xamante ne de bëri na ak Fils de Balla Fils de Balla daan ko mu mu mu moom nag mu contesté verdict u arbitre yi recours loolu la journal bi xamal ne ad euh, euh, manager am di Abdou Bakhoum daal déposé na recours fële ca CNG. waaye tamit ñàkk na lu toll ci deux cent quarante mille francs CFA. waaw parce que nag seen waajtaay dafa yàggoon Amina Ndiaye te yaakaar na loolu moom xamoon nañ ne dina leen dal moo tax na dal euh, li leer ba leer mooy ko ne. ki nga xamante rek moo di moo di moo di général Malika ñàkk xaalis bu bëri mook Fils de Balla parce que toog nañ presque lu une heure de temps wala yoo xamante ni dañ noonu la demee kon Boucar Ndour euh, dafa mel ni li lañ leen indiloon seen xibaar revue de presse yi jaajëfal leen fu waaye mënti nekk mu bitim réew muy Sénégal jox leen dig daje jaajëfal la yu ma ci àndaloon. waaw di la jaajëfal di jaajëfalaat ñëpp rek di jaajëfal Serif ah Xana Fall futur maire de Diourbel di ko ñaanal jàmm di ñaan di nuyu tamit. Mokhtar Ba ah, borom Djilor nekk nag architecte waaye nekk tamit ki nga xamante ne moo di ko moo di secrétaire général Comeva moom tamit bëgg mairie la di naan waa Djilor waa Fimela waa Petite Côte bi yëpp nañ ko jàppale dooleel ko seen doom la te yaakaar naa ne am na ay ambition pour localité ba Serigne Ndour sama adversaire bi maa ngi koy nuyu di ko ziar doom lay Auxode ah euh, Matar Kanté depuis Angleterre euh, Yoro Kanté maa ngi koy bëgg ñoom Baye Saliou Ka Daouda Daouda Ngom sama mafia bi gaa yëpp maa ngi bëgg Aly Ngom Sène depuis Turquie président maa ko ziar. noonu la demee mbokk yi kon dig daje bu suba jàmm incha dimanche 31 octobre Fallou Ndiaye ak waa Ndiaye production ñoo ñu woo ca arène nationale ba daal di boole ñaari xale yu ñu gën a ràññee ci seen génération grand combat bi war a dox ci diggante Tafa Mbër doomi parcelle ak Ada Fass gone Fass Médina Gueule Tapée drapeau jeu technique Mor Kankang booy yëmbal du xam ngeen leen bu ñu bëree mu neex bu ñu xeexee mu neex waaye ay bu ñu feccee ñu daal di jële ji Hercule boole ko ak armée bu ngéwél cey boobu combat waaye nag mbokk yi bu leen fàtte ni lamb ji nekkatul stadium Iba Mar Diop waaye arène nationale et que direct lay doon disponibilité sur seen affiche point com daw leen gaaw jënd seen ay code ndax 1000 francs rek la kon dugg leen gaaw ci seen affiche point com ngeen daal di cliquer événement Tapha Mbeur ak Ada nga bës acheter un code bu fekkee ni da ngaa bëgg jënd ak sa Orange Money wala sa Wave wala bu fekkee da ngaa bëgg fay ak sa carte bancaire da ngay bës connexion par mail kon nag mbokk yi bés baa ngi noonu dimanche 31 octobre ca arène national Tapha Mbeur Ada Fass combat des espoirs ak fallu Ndiaye toj nga fi